xaja suuxat yaa rabbi yaa nu bégal ñun nu sunu may yaa ngi baawaan faat naanu bay borom yaaram yaanu bégal nanu suñu may yaa ngi baawaay aja suuxat naanu yaaram yaanu bégal nanu suñu may yaa ngi baawaay way laani xalifatu ibrahima am mal joona wal wal karami borom tee nu naanu bay borom yaaram yaanu bëgg sunu may ngi baawaa way la xalifatu ibrahima am mal joo te doy nga nu weeraay kenn mënuloo ñaawal bay boy doy na noo doy nga ahlul islam bi doy nga nu sëriñ sa aca doy na nu weeraay mooy bayu jiibeek daam bay boy doy nga noo doy nga ahlul islam doy na nu sëriñ sa te doy nga ci weeraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokk taalibe yi mbokk islam bi waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ngeen dee déggee bàkk boobu doy ngenu sëriñ sëkk doy ngeenu weeraay kenn mënu ñaawal sëwru doy ngenu sëriñ Ibrahima Seck mi nga xam ni fa tabarakallah jamono du ko fàtte ngor du ko fàtte xel du ko fàtte xol du ko fàtte kooku nag la bisam dellu siwaat incha allahu taala mu tombeek nag euh, samedi le 11 mars 2023 tollu ci juróom fukki at depuis 73 ak léegi kooku la bisam dellu si waat fa tabarakallah ñu ngi fii ci kër maam Ahmadou Ndack Seck ci ndigalu kan Baye Serigne Hassan Seck mi nga xam ne mooy juróom-ñeenteelu xalifa Cheikhu Thiénaba maam Amari Ndack ci ndigalam waaye wàcce ko ci fa tabarakallah euh, xaritam soppeem sunu waajur Cheikh Jibrilu Seck mu Serigne Ibrahima sekk borom yaaram doon xalifa borom yaaram ànd koog ay rakkam fa tabarakallahu ñoo fa yéenee woote gàmm gi ci le 11 mars incha allah mbokk yi di jëkk rek di sant yàlla am na lu fi jaaroon tax gàmm gi taxaw muy feebar boobu yàlla ñu ko yàlla gën a dàqal ci barke borom yaaram ñu ngi woo képp koo xamante ni si soppe nga wala taalibe nga wala am di jàmm nga fa tabaarakallah wala autorité nga ñu ngi lay woo ci bis bi nga xam ni bisu sëñ Ibrahima Seck te kat mbokk yi bis boobu jàpp naa ni képp ku fa ñëw sa aajo dina faju ndax ki ñuy wooteel nag fa tabaarakallah jar na dagg kilomètres yi bari ñëw ndax liggéey na ko ci zaahir liggéey na ko ca baatin canaba lay xewee incha allah le 11 mars mil kër ca këram nga fa tabarakallah ci njiitu Cheikh Djibril Seck ànd kooki rakam bàyyi Serigne Cheikhou Amadou Seck imam fa tabarakallah ànd kook chef de village Serigne Alassane ñaan Seck suñu bay Serigne Diop joor sek waaye ànd koog Serigne Samba Gasso Seck ànd ko ak Serigne Ahmad Dam Seck ànd ko tabarakallah ak Serigne Cheikh Wali sek ànd ko ak Serigne Ali Seck waaye ak njaboot gu jigéen gi yëpp fa tabarakallah kon bis baa ngi noonu euh, teew nañ fii nag ci jotaay bi Baye Djibi ci boppam moo jiite jotaay bi incha allah ànd ko ak kilifa yu ñu ko bokkal. defe naa ne bu ngeen toppee ci sunu caméra di ngeen gis kilifa yi ngeen gis ni bis bi fa tabarakallah image bi rek wane na boppam. kon ñu ngi ñaan yàlla ci yàlla yóbbu jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ni bala ñoo sori wala ñu ñëw ci yeneen commentaire dañuy wax ni incha allah dañuy jël suñu kaddu jëkku koo jox chef de village Serigne Alassane Niane Seck moom dinañu dikkal ci kan mooy Serigne Ibrahima Seck rahmatullahi alayhi ca ak lu mu ci mën a génne lu mu tuuti tuuti su noppee ñu jox sunu euh, xarit suñu soppee porte parole Cheikhou Thiénaba waaye di sëtu borom yaaram di Alaaji Ngagne Demba Sarr am taxawaay lool ci bisu maamam bi démb ak tey fa tabarakallah yàlla na yàlla gën ko dëgëral barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu defal nu appel wooteel nu woote bu gën a yaatu fa la suñ ci jógee nag mbokk yi ko woote bisu sëñ Ibrahima ak ni dayoo bi toll di nga ni organisation commission président organisation mooy alaaji Cheikh Cheikh Diop ànd ko ak ñoom baar ak ñu ko bokkal fa la ñu ciy def nag liggéey bu am solo dañuy wax ni mag de mooy ñaan mais gone mooy liggéey ca liggéey boobu fa tabarakallah ñu ngi ci kon suñu noppee moom la ñuy jox ñetteelu kàddu incha allah suñu ñëwaatee nag dugal leen ci programme bi gën leen koo yaatal ànd na nag ñeenti télévision maam Amady Dak Seck muy Thiénaba TV fa tabarakallah Shams TV Jaayan TV fa tabarakallah ak Thiénaba 24 kon ñu ngi jël suñu kàddu jox ko Serigne Alassane ñaan Seck mais kenn du bàyyi gindu ko FM mi nga xam ne fa tabarakallah mi ngi émettre wax dëgg yàlla ci commune beeg li ko wër kon ñu jël sunu kàddu jox ko sëriñ Alassane Niane Seck mu wax nu kan mooy sëriñ Ibrahima Seck borom yaaram borom mag a neex. Ibrahim wasalaatu wasalaam ala wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wasalaam mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe ak xarit yi ak soppe ak wëlëre ñu ngi wax yëpp kàddu salaamun minna aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo boobu sunu. waajur bàyyi sëñ Assane Seck xalifatul xaam ni taifati tijaani canam di ci teg sëñ Jibril Seck borom yaaram mi nga xëy moo ay wattu ndono Seydina Ibrahima Seck borom yaaram ak rakam sëñ Cheikh Amadou Imaamu Ratib ak sëñ Ahmad Daam mi fi teewal njabootu sëñ Ibrahima yëpp ak sëñ Abdourahim Seck sunu doom baay ak sëñ Ibrahima Silla sunu doom baajir Cheikh Ndiaye ak mboolem mu xaddam yi fi toog di wax rek ni naka jekk itam nii lañ fi daan toogee ginnaaw bi ñu ci jeqee itam baytu raxmati ak daayira sukur laay ak mboolem kun bokkal biir Thiénaba Seck ak mboolem taalibi fu taalibi Thiénaba nekk tey bëgg Thiénaba ak diine ji ak tarixa bi ñu ngi lay dugal ci biir salaamaaleykum wa rahmatullah naka jekk itam bu ñu daan waaj gàmm sëñ Ibrahima Seck borom yaaram nii rek la daan demee daje waxtaane waaj gi daje waxtaanee ay jikkoom daje waxtaanee ay melokaanam teg ko nag ci ci ci ci sunna ak ci lislaam ndax seydil wujud li li muy rëy rëy alluwa sunu borom da ko ni woon ba kulan naqus alayka min anba'i rusul maa nu sabit bii fa aadaka wa jaaka fi asil xaq mawhisatan wa sikra lil mu'minina kaay ma nettali la yonent yi fi jaaroon seeni jikko ak seeni doxalin ak seeni doxin ngir mën nga mën ci dëgërale sa dund offrante ci situation bii di ñëw loolu moo tax bu jamono bu jamono bu jamono màggatee rek ñu andi kilifa gu mag sampal ko gàmm waxtaane ndonoom waxtaane diineem waxtaane ngoram waxtaanee mbaaxam ngir ndaw ñi mën cee tëggaat ay jikko di ñaan yàlla nag mu defal nañ ci biir jotaay boobu li boroom xam-xam yi wax ni heure bu ñuy waxtaanee ku baax hinda sikri saalihiina tatanazzal rahmaat heure bu ñu waxtaanee ku baax yàlla dafay ubbi coob yërmande muy baaw ñëpp tooy yàlla yàlla defal na ko avant premier bi def ko ba ca gàmm muy liy baawan ci canaba di jaawaan ci tarixa bi di jaawan ci diine ji di jaawaan ci Sénégal jëmm jiine bëgg waxtaan rek mooy sëñ Ibrahima Seck borom yaaram di ko bëri tur ñu wax sëñ Ibrahima diko ko wax wax borom yaaram di ko sawru mbeen di ko wax xalifa di ko wax seyxu islam di ko wax seyxu murabbi di ko wax seyxu tarxiya di ko wax doomu Cheikh Thiel moom Talla Seck di ko wax sëtu Ahmad Ndaag bu baax ba maam Ahmad maam sëñ moom Talla Seck bàyyi ko fi muy ab taawam mu doon taaw bu taawu diine ji di taaw bu taawu tari bi di taaw bu taawu ndono mag ñi waaye taaw di taaw ñëpp maam moom Talla Seck yóbbu woon ko Gosaas bàyyi ko fa mu nekk fa yor ay tool di bay Eh, Maam Talla Seck daana wax bu toog ba ci yàgg mu Ibrahima de li ma ci jaaxal mooy tab gi mu teel a am te amagul dara ak fit bi loolu rek ma ci jaaxal nga xëy daf ko judduwaale màggaale ko ak njub ak mbaax la daloon turandoom yonent yàlla Ibrahima di yàlla wax naa wala xad wala wala wala xad atena Ibrahima rusduhu min xablu sëñ Ibrahima yonent yàlla Ibrahima maa ko may njub ci ba muy xale ndono googu sëñ Ibrahima Seck da koo am ci ci ci ci ci turandoom sëñ ba eh, wa istablay ibrahima rabbahu bi kalimatin fa atamahuna xaala inni jaahil imaaman lool tam doo ko am ci yonent yàlla ibrahima yonent yàlla ibrahima yàlla nee na maa ko natt ba xam ni mat na imaam ma teg ko ci kanamu nit ñi Seydina Musaa Sekk noonu la ko yàlla nattoo maam moom moo taala jur ko muy sotu maam bi bi tabam bi tabam bëggee siw nag te xam-xam bi ñëwagul maam góor gu mag yóbbu ko ndar làq ko fa mu nekk fa Seydina ma Sekk jàngee na ndar Seydina Musaa Sekk jàngee na dagana Seydina ma Sekk jàngee na fuuta sëñ Ibrahima Seck jàngi na Mauritanie yooyu sëñ Ahmed Dame am na ci xam-xam yu bari e bi maam Momar Tall demee ba magee nag mu woo maam Mor mi nga xëy kàngam la woon ci diine ji ak Baye Malaw Kayre ak yeneen mag yónni leen ko neen nañ ko andi ñu dem kër ba koy jëlee fekk nañ xemmef tefam ci téere matagul waaye bi ñu ko jëlee bay romb pont Ndar bi romb nañu benn tubaab bu yor ak gaynde ñett di ko ñett di ko womat te sëñ Ibrahima Seck ñett ko jëli woon mun leen gaynde gaynde ñu koy jëli xam nañ ne xaddee xale waaye bu doon mag duñ ko jëli maam Mor Gueye ko un un sekk mënul yéexu boo màggee ci diine ji nangul bàyyi xel kon li ma bëgg wax rek Seydina Limaamu Sekk gaynde la woon ci diine ji gaynde la woon ci bi mu ñëw nag nekk fekk maam góor gu mag maam góor gu mag dox tuuti bàyyi ko diine ci waaye ween woo maam góor gu mag doon nàmpale ñam bokkaloon maam góor gu mag ba nga ni si koo ci dem rek Seydina Limaamu Sekk nàmpal na la ci befar nàmpal na ñu bokkoon maam góor gu mag nàmpaloon ñu bokkoon maam Ahmad Ndak nàmpaloon ñu bokkoon diine ji nàmpaloon ñu bokkoon tarixa bi nàmpaloon ñu bokkoon canaba ba pare nag di patriote bu mag nag ci patriote bu mag ci Sénégal boo xëy 1960 ba ñuy am indépendant ñu samp indépendant Sénégal ci Sëñ Ibrahima Seck bokk moo fi samp moo fi samp arrondissement bi samp fi sago bi samp fi coopérative bi samp fi école bi Sëñ Ibrahima Seck jóge na fii 1960 dem ba Thiès ànd di défilé war di défilé loolu mi ngi ci archives yi Sëñ Ibrahima Seck bokk na ci ñi nga xam ne bi ñuy bi ñuy tëgg constitution Sénégal moo ne président Senghor drapeau bi loo ci nam vert son rouge bi. mu ne ko def ci biddiw bi mu représenté diine ndax biddiw li muy représenté mooy allahu biddiw liif laaw la am alsaqeer la loolu taxoon suñu laa ma sekk nii nañ ko ci def la suñu laa ma sekk doon koo xam ne nii euh, canaba moo xàll mbedd yi moo taal lamp yi moo tabax sëg yi lotissé lotissé canaba bawol dem lotissé gusaas lotissé ba kajoor lotissé lotissé lotissé cebe jël ba alfa mamadou rakam samp ko ca canaba canaba canaba kajoor mu yor fa institut islamique di jàngale diine jeeg tarixa bi Seydou Lamou Seck doon koo xam ne nii léppam sëñ Assane Salaam wax na ni Seydou Lamou Seck day ba nga ni mu nga àjjana waaye ay laal laalagu ca dara ak tabam rek ci lañ koy fay. bàyyi mbay pen ni lu mu fekkee rek teg na ca ndawul teraangaam ni ñu ne ko lan la mooy tamu teraanga li mooy bu ko fekk woon. mu doon koo xam ne jikkoom yëpp li ci gën jamono gën estimé mooy ku tabe la woon Seydou Lamou Seck ku bëggoore la woon Seydou Lamou Seck ku yiw la woon Seydou Lamou Seck ku baax la woon. sampoon na may mu xaddam ku mel ni Baye Bakar ku mel ni Baye Serigne Sarr ku mel ne Baye Cheikhou Ndiaye Kaba ku mel ne Baye Ali Fall foo dem par exemple na fa mu xadam ci diine ji ak tarixa bi ànd ak mag ñëpp ci diina ji ak ci tarixa bi 46 ba 73 ba bi ñu fiy jógee ca ca discours am bu baax ba mu ni mu ni maa ngi leen di baalu àq yéen ñëpp ndax ku yor alal yi nit juróom fukk ñaar fukki at ak juróom ñàkkul bis nga tooñ ko ca waaye woon na leen itam nekkuma woon bant bu fënax boo xam ni lu daal sama kaw ma daanu ne kon 25 ans yi du ko xuus ba ànd yow fii ma soowee ci diine ji soowee ci tarixa bi soowee ci bokk gi soowa ci Sénégal soowa ci lépp loo yi moo doon liggéey maam Talla Seck waaye soowa ci lépp loo yi moo doon liggéeyu maam Ahmad Daak ba dara yàqoowul ci loxoom kooku moo doon sëñ ma Seck mu bàyyi fi nag sëñ Jibril Seck borom yaaram 73 ak léegi mi ngi bëgg a yàgg ñuy ànd ak moom di daanoo ko jóg ànd ak sëñ Cheikh Amadou ànd ak sëñ Ahmad Daam waaye ànd kook diine jëg tarixa bokk yi bëgg a fàttalikuwaat bisam nag ngir jamono mën cee beesawaat tarixa bi beesawaat ci jukko yi beesawaat ci ndaw ñi amaat ci leçon waaye Sénégal réew mi beesawaat ndax mag ñu mel ni seen sëñ ma Seck bu ñu leen waxtaanee ci réew mi ak fii réew mi toll ci crise bu ñu jëlaatee ay jikkoom diine mën na cee beesa waaye réew mi mën na cee baaxawaat kon kooku lañ bëgg a waxtaanee ay jikkoom waxtaanee ay doxalinam waxtaanee ay taxawaalam ay taxawaay nga xay kenn mënu koo fàtte sëñ Ibrahima Seck kenn mënu koo fàtte démb ak tey kàddu yooyu rek lañ ci doon tënk bu ñu demee ba ci biir na ñu gën développé di wa di sant nag sunu waajur ba Assane Seck bu baax mi nga xëy moo ay wattu tey diine ji ay wattu ndono mag ñi ayewatu tarixa bi ndax li ñuy def lépp nag ci ndigalam lañ koy def te di ko invité ci bis ba di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak wér gi yaram Seydina Seck mboolem ko mën bokkaloon maam Talla Seck wax na ni maam Talla Seck nelawee ñi gënoon a ndawee dañ ñëw fekk ko mu daal di sol sol sol palmaan kolu woo maam xadi ba ni ko lu xale yi bu gënoon lu sama bàyyi lu mu daan defal xale yi lépp mu wax ko mu def loola bàyyi sëriñ ñaaxaan netti na ma ci làmmiñam ni dañoo ñëw ñaar yoon nuyu ko si ko ñu ni ki fi nekk dafa niroog sunu bàyyi ñu ni ko maam mun nañ ko def bàyyi benn yoon rek lépp loo xam ne ni maam góor gu mag daana ko nampale xale mbaa jigéen mbaa góor mbaa diine ji mbaa tarixa bi mbaa bokk gi taxawaay boobu sëñ daama sekk tëriwu ci tëri siwu ci dara wasalaamualeykum wa rahmatullah aouzu billahi samil alim min asheytaan arrajim bismillahi arrahman arrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ñu ngi nuyu islam bi yépp ci ndigalu Baye Cheikh Canaba moo ñu yónni fii ni demal ci wetu Serigne Jibrilu Seck nga toogal ma fa yëkkatil ma ay kàddu ñu waxaat ñëpp tam ni ñu ngi fii ci kër sëñ Canaba Ibrahima ci sanc bi ci ndigalu Baye Jibrilu Seck mi nga xam ne mooy xalifaam depuis 73 ba vingt 2023 mi ngi nii toog ànd ak njabootam gi yépp bi mu fi toogee ba léegi barab bi lépp a ngi rafet bay ji bi yàlla na gën a rafet kon ñu ngi wàcc nuyoom bi tam ci bay seex ba fa tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla yàggal ci jataay bi wàcc ko tam ci rakkam di suñu maam ñaaxa sekk moom tam yàlla na ko yàlla taxaw aar ko wàcce ko ci suñu maam tam maam Araman sekk fa tabaarakallaahu wàcce ko ci njaboot gi yëpp ci soxna ba sekk mi nga xam ni tey mooy taaw ak rakkam yi mu ko seqal yëpp wàcce ko tam ci sëriñ Mamadou Seck roqee ak njabootu maam ma dikke maam tafsir ma dikke yëpp wàcce ko ci sëñ Ibrahima sekk taala xaar ak lépp lu maam Ibrahima Penn njaboote fa tabaarakallaahu ñu ngi dugmal lu rëy di gàmmu sëriñ Canaba Ibrahima sekk moom nag sa ñaan dugg na ci wante alxuraan dafay wax ci suuratu najmi aaya fanweer ak juróom-ñaar wa ibrahima allazi wafaa wafaa man ursila ilayhi maa ursila bihi wafaa bi ma ahadallaahu alayhi min tablixi risalatihi kon sëñ ba ibrahima sekk mooy ki nga xam ni matal na ci liñ ko yónni woon ak ca ko yónni woon ak façon boom ko yónnee woon lépp matal na ko sëkk matal na kóllëre gi mu waxoon boroomam ci kër maamam matal na ko sëkk ci ñun ko yónni woon kan mooy sëñ Thiénaba Ibrahima sekk moo njëkk a toog ci sëtu maam Ahmad Ndaak Seck yi ci xadara bi ginnaaw maamam maam Amari Ndaak Seck ginnaaw bàyyee maam Momar sekk moom moo nekk ñeen ñetteelu xalifa bu maam Ahmad Ndaak Seck toog fi ñaar fukki at ak juróom ñaar yor ko kër gi après indépendance après indépendance fa tabaarakallaahu moom tam sembalu réew mi ak sembalu Canaba ñi doon defal histoire Sénégal sëñ Ibrahima Seck ci la bokk bidéew bii sëñ ñaana wax na ko moom bi Senghor woote ñu koy tëgg moo génne xalaat ni defal ñu ci bidéew mu remplacer këru diine yëpp ndax senegal réewum jullit la kon na ñëpp xam ni bidéew bi Canaba gii la jóge sëñ Ibrahima Seck mi ñuy defal bis moo ko ci def fa tabaarakallaahu Euh, mu toog fi ñaar fukkat ak juróom-ñaar ubbi canaba ubbi këru diina yi ubbi relation yëpp fa tabaarakallah mboolem lu luñ ko waroon a def ak lu mu waroon a wax sëñ Ibrahima Seck def na ko wax na ko kon gàmmoom gii nga xam ni ñu ngeen ñu ngi ci ñeen fukkeelu at ak euh, ñu ngi ci juróom fukkeelu at Baye Jibril Seck di ko jiite xilaafa yi fi jaar yëpp mm, dañuy tënk ndax nee na mi ngi koy yëgal islam bi yëpp ci ndigalu Baye Cheikh Thiénaba ndax moo ñu fi yónni ndax kàddu kër soo ko yoree yaa ngi ci lépp yaa ci biir lépp kon nee na bàyyi Seex Jibril nee na mi ngi koy yëgal baayam yëpp te bàyyi Seex Canaba ne ci bopp bi ñu ngi ko koy yëgal ak rakkam yëpp maam ñaaxa sekk ak euh, bàjjanam fa tabarakallahu maam aramaan di ko yëgal rakkam yëpp sëñ Mamour Seck Roqe ak lépp lu aju ci moom mi ngi ko koy yëgal ak sëñ Ibrahima Seck Taala Xaar ak lépp lu aju ci moom mi ngi ko koy yëgal rakkam yi mu seqal kër gi ñëpp tam mi mi ngi koy mi ngi mi mi ngi ko yëgal ñëpp diine ji nga xam itam dañ koo séq ñoom séq kook sëñ canab Ibrahima Seck sëriñ Muntaxa Mbàkke xaadim rasul nekk ca bopp ba Cheikh Jibril nee na mi ngi ko koy yëgal fa tabaarakallaahu ndax relation sëñ ba Ibrahima ak Touba Touba Seck ngi nii mu tabaxal ko fi kër sëñ Abdoulaat Mbàkke ba mu àgg mu woo ko fi ak ngan loolu sembulu kër ga la kon ñu ngi ko koy yëgal moom itam di ko ci sàkku ci moom ay ñaan ak ay taxawaay nee na tam mbokkam mi nekk Tiwaawoon fa tabaarakallaahu di sëriñ Babacar Mansour fa tabaarakallaahu ak li ñu seq ak El Hadj si ndax moo waxoon ci gàmm ni su ma jaan màttee bu ma kenn lugg dem leen Tiwaawoon ngeen lugg El Hadj Abdoul Aziz mu wàcc kooku mooy wa taawunu alal birri wa taqwa kon jëflante googu sëñ Ibrahima Seck def na ko. nee na tam mi ngi koy yëgal mbokkam sëriñ Maahi Ibrahim Raayal Hadar Ibrahima ya ca Medina Baye di mbokkam di xaritam nee na mi ngi ko koy yëgal fa tabaarakallaahu di ci sàkku ci moom ay ñaan ak ay taxawaay. nee na mbokkam ma nekk leew na ñeseen fa tabat maam Cheikh Ahmad Tijaani al Khalifa nee na mi ngi ko koy yëgal ak lépp lu aju ci maam Khalifa Niass ak ni mu ci ajoo mi ngi koy yëgal bis boobu. nee na mi ngi koy yëgal tam mbokkam fa tabaarakallaahu di maam Bekkaay al Bekkaay al Kuntiyu di xalifa général bu Njaasaan ak njaboot ga yëpp ñu wàcc ko ci porte parole am fa tabaarakallaahu di di sëñ Abdourahman Kunta nee na mi ngi ko koy yëgal fa tabaarakallaahu di ci sàkku ay ñaan ak ay taxawaay. nee na tam mi ngi koy yëgal mbokkam ma nekk yoof di maam Mouhamad al Makhtar laay di xalifa général bu laayeen wàcc ko ci suñu mbokk di suñu xarit di Mouhamad al Amin mi nga xam ne mooy porte-parole lu kër ga nee na tam mi ngi ko koy yëgal di ci sàkku ay ñaan ak ay taxawaay nee na mi ngi koy yëgal tam mbokkam di di di di porte-parole lu Medina Baye fa tabarakallahu di sëriñ Mahi Ali Cissé mi ngi ko ko yëgal moom itam ak mbokkam di Mouhamad Mouhamad al Babacar Niass ca lew na Niassène nee na tam mi ngi koy yëgal fa tabaarakallaahu nee na mi ngi koy yëg tam mbokkam fa tabaarakallaahu ñi nga xam ne mbaay famille Omar bi yëpp di maam Bachirou Taal mi ngi ko koy yëgal ak mbokkam di xaritam di sidina si euh, euh, sëñ Madani Taal ca Dakar mi ngi koy yëgal bis bi di ci sàkku ay ñaan ak ay taxawaay fa tabaarakallaahu mboolem ku mu seqal diine ji ak nu mu seqeeg moom diine ji te sëñ Ibrahima Seck daan ñëw ci moom muy ñëw ci ñoom nee na mi ngi ko koy yëgal di ci sàkku ay taxawaay ak ay ñaanam réew mi itam xam ne ci loxol président la république fa tabaarakallaahu mi nga xam ne tam ci loxoom la nekk nee na mi ngi koy yëgal bis bi di ki di ci sàkku nam ca daan taxawee mu taxawi ci noonu ndax dimension suñu moo mel noonu mi ngi koy yëgal wàcc ko ci premier ministre am Amadou Ba wàcc ko ci ministre de l'intérieur euh, Antoine Abdoulaye Diome mi nga xam ni njaboot la taalibe la xarit la ci biir kër gi nee na mi ngi ko koy yëgal di ci sàkku ci moom ay taxawaay nam ko daan defee wàcc ko tam gouverneur de la région fa tabarakallahu bu Thiès ak préfet département ak sous préfet ko ci maire Talla Diagne ñoom ñëpp ñu ngi leen di yëgal bis bi ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo seq kër gi di jàmbaaru diine ji Seydina Omar si fa tabarakal honorable député euh, di xam ne doomu sëñ Thiénaba Ibrahima Seck la sëñ jibi bi nee na mi ngi ko koy yëgal wàcc ko tam ci doomam honorable député Mandiaye kebe ñu ngi ko koy yëgal wàcce ko ci doomam Abdou Ñing ñu ngi ko koy yëgal o conseil fa tabaarakallaahu ak ñëpp ñu aju ci kër gi ak ni ñuy yëngatoo ci kër gi ci wàllu àdduna Baye Jibril Seck nee na mi ngi koy yëgal ñëpp di ko di ko di ko yëgal fa tabaarakallaahu nee te mi ngi koy yëgal doomam fa tabaarakallaahu di seen doomu baay di Serigne Diop médiateur de la République fa tabaarakallaahu moom itam mi ngi koy yëgal bis bi fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal alhamdulilahi rabil alamin fa tabaarakallaahu Baye Cheikh Jibrilu Seck nee na tam mi ngi koy yëgal rakkam yëpp sëriñ Talla Seck sénateur fa tabarakallahu ak sëriñ Souleymane bu Baye Cheikh Jibril mi nga xam ne mu seen waaju lañ duppee Baye Cheikh Jibril mi nee na mi ngi leen koy yëgal fa tabarakallahu wàccataan nuyoo beeg yëgël géeg yëpp ci imaamu ratib di sëriñ Pape Seck Mourtada di xalifa maam Souleymane nee na rakkam la xaritam li mi ngi koy yëgal di ci sàkku ci moom ñaan waa Fass Kofé bi nga xam ne fa am na ay taxawaay ci kër gi sëñ Jibril sekk nee na mi ngi leen koy yëgal waa kër euh, Baye Mor Ñang imaamu ratib fa tabaarakallaahu ñu ngi leen ko yëgal waa jaayaan ak lépp lu aju ci jaayaan kel ak mbaaleen ak localité ba yëpp Baye Cheikh Jibril nee na xam nañ ay taxawaay kër sëñ Canab Ibrahima Seck nee na mi ngi leen ko yëgal surtout xalifa mbaaleen ba mi ngi leen ko yëgal fa tabaarakallaahu nee na mi ngi ko yëgal tam waa baawa baab sama yumpaañ jafane ne fa tabaarakallaahu am ay taxawaay ci biir kër gi nee na mi ngi ko koy yëgal wàcc nuyoo bi yëpp nag ci kaba fa tabaarakallaahu ci njabootu maam maam Arouna sekk ñoom ñëpp fa tabarakallahu ñu ngi leen koy yëgal waaye yëmbal Baye Jibril sekk nee na mi ngi leen koy yëgal mboolem lu aju ci daayira sëñ Canaba Ibrahima Seck ak num ci ajo ak ci diine jeeg tariixa bi yëpp Baye Cheikh Jibril mi ngi koy yëgal ñëpp fa tabarakallahu Baye Jibril Seck tam nee na mi ngi koy yëgal euh, magam yëpp soxna Xadiba wàcc ak njabootam gépp wàcc ko ci soxna Aana ndax Baye Ndiaga Maxtaar taxawaay bi mu amoon ci kër gi taxawaay bi amoon ci njaboot gi mu jël euh, tuddee ko doom jël doomam jox ko kon soxna Aana ak taxawaay ya nga amoon ci Baye Ndiaga ak sa njaboot gi yëpp nee na mi ngi la ko yëgal fa tabaarakallaahu rakkam bi nga xam itam mi ngi dem barki démb di soxna màgg dinañ ko ci ràndul hommage ñaanal ko ci yàlla ak ay taxawaayam yëpp fa tabaarakallaahu nee na doomam fa tabaarakallaahu di borom gàmm gi di sëriñ ma di ko sekk borom yàlla nee na ca Canaba Kajoor ñu wàcce nuyoo beeg woote bi yëpp ci sëñ Talla may seen baay di imaamu raat ñu ngi koy wàcc wàcc ko ci sëñ Pape Seck Mourtada ak mboolem li sëñ bu dikk Seck njaboot ak nu mu ko njabootee Baye Jibril nee na mi ngi leen ciy woo wàcc ko tam fa tabaarakallaahu ti njabootu Baye Ousmane Seck ca Mbuur sëñ Mourtada Ousmane am ci ay taxawaay baayam amoon ko ci nee na moom itam ñu ngi koy wàcce ci nuyoo bi ak wàcce ko ci ak ñaanam ak yëpp ñu ngi ko ciy woo ak ay xalaatam ak ay ñaanam fa tabaarakallaahu mboolem daayira aju ci kër gi ak num ci ajoo ñoom ñëpp Baye Jibril rek mi ngi lay woo ji jiital ci daayira ndar bi fa tabarakallahu fédération ndar ñu ngi leen koy yëgal euh, ak njàmbur fa tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi ci biir woote bi daayira bi nga xam ne mooy daabir Sëñ Canaba Ibrahima sek mi nga xam ne Baye Buye Jaañ Baye Baye Mondeel a Guèye sëñ Baara Ndiaye ñoom Baye Ibrahima Ndiaye eh, njabootam a ngi nii toog ñu nga xam ne ginnaaw metin méttit yëpp ne na ko ci ginnaaw Cheikh Jibril jàppale ko dimbale ko ba lii njaboot gi mën cee taxaw tey nee na ñu ngi mi ngi fàttaliku jàmbaaram jëm mbokk ma sëñ Ibrahima Ndiaye wàcce ko ci fa tabaarakallaahu ci Baye Bouye Diagne ñoom wàcce ko ci Baye Mandela Gueye ñoom wàcce ko ci sëñ Baara Ndiaye secrétaire particulier bu sëriñ bi ñoom ñëpp ak fédération bi fa tabaarakallaahu sëriñ Cheikhou Ndiaye ñoom ñëpp Baye Jibrilu mi ngi leen koy yëgal fa tabaarakallaahu ak lépp lu aju ci daayira boobu ak nu mu ci ajoo ba ci seeni doom ak ci seen i sët seen jarbaat ñu leen koy yëgal fa tabaarakallaahu wàcce na ba Gusaas fa tabaarakallaahu bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal ba ci sëñ Abdul Aziz Cabe sa sa say Murtada waa kër Baye waa kër Baye Saada wàcce ko ci nag seen mbok di seen xarit di lépp fa tabaarakallaahu sëñ xalifa buso di Khalifa Baye sëñ Alpha Mamadou Seck ñu tudde ko na ba Ibrahima mu toog ci barab bi tey toogeen wu rafet toogeen wu yiw bàyyi sëñ baa ngi koy yëgal di ko xamal ne gàmm gi gam moom la ñoo ko bokk séq ñoo ko bokk euh, euh, euh, ñoo ko bokk séq lépp luñ ci war a def tam ñoo ko àndandoo di ko defandoo fa tabaarakallaahu bay sëñ bi nee na mboolem ko aju ci kër gi ak num ci ajo ñu ngi leen koy yëgal ñoom ñëpp soxna nday Marème Badiane fa tabaarakallaahu bay sëñ baa ngi koy yëgal ndax jarbaat la mbokk la xarit la ñu ngi ko koy yëgal fa tabaarakallaahu kon kaddu yi foofu lañ koy yemale waa kër famille waa kër famille waa kër fami maam ba Ahmadou Baro Njëgën bu Thiès fa tabaarakallaahu ñu ngi leen koy yëgal ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu di ko yëgël tam suñu mbok di suñu xarit sëñ Alpha Ba toogal fi waa Wura Maadi yu fa tabaarakallaahu sëñ Ousmane sëñ Ousmane Saw bu Rumde di xalifu Rumde ñu ngi ko koy yëgal fa tabaarakallaahu ci ko Baye Issa Gaye ak njaboot ga yëpp sëñ Malick Gaye ca Ngaye fa tabaarakallaahu di suñu mbokk ñu ngi leen koy yëgal wàcc nuyoo beeg woote beeg lépp sëñ Abdoul Aziz ca Mirina saar ak njaboot ga yëpp Baye Khalifa saar ak ci biir nuyoo bi Baye Alpha Sarr ak Baye Ablaye Sarr ak ñeen ko séqal ñëpp ñu ngi ci biir nuyoo bi ndax sëñ Ibrahima sekk mooy diine ji mooy tariixa bi mooy réew mi suñ ko dee wooteel rek suñ nee sëñ Canab Ibrahima rek lépp a ngi ci biir li annahu kaana umma maanaam moo xaj ci ñëpp wande kenn xajul ci moom kon moom la ñuy wooteel bis bi fa tabaarakallaahu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane bu Baye Mamadou Li sekk Baye sëñ baa ngi koy yëgal ak njabootam ga yëpp fa tabaar sëriñ Maodo Babacar bu bàyyi sëñ Bay Seck mi ngi ko koy yëgal ak njaboot ga yëpp sëñ Abdourahim Bay Móori mi ngi nii ak njaboot ga yëpp wàcce ak nuyoo beeg yëpp ci sëñ Ibrahima Seck bu bàyyi Abdourahim borom cooti fa tabaarakalla ak njaboot ga yëpp mi ngi leen koy yëgal wàcc ko ci maam Aliou Seck fa tabaarakallaahu bàyyi sëñ Cana bàyyi seenu xaar mi ngi ko koy yëgal ak njaboot ga wàcce ko ci sëñ Mamadou Seck bu bàyyi Cheikh Ahmadou Tijani ak sëñ góor ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen koy yëgal fa tabaarakallaahu ak ak euh, njabootu maam Ousseynou Farsaw sëriñ Talla ak soxna Diidi ñu ngi leen koy yëgal wàcce ko ci Baye Moussa Seck ca Cabe sëriñ Alpha ak sëñ Maxtaar ak seen jigéen fa tabarakallah ñu ngi leen koy yëgal ñoom ñëpp fa tabarakallahu fa tabarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal wàcce ko nag ci njabootu maam Buubu sek sëriñ Moussa Seck bu maam Buubu fata ak njabootu Mirena gi yëpp ñu ngi leen koy yëgal ñoom ñëpp njaboot gi nga xam itam ñoo ne ci biir dëkk bi di ciise alxaaji Taala Siise yàlla na ko yàlla yërëm ba taxawaay bi yëpp moo ko doon de wante bàyyi ànta laa fa ñu ko yëg ak njabootu ci sa gépp njabootu bàyyi taala Guèye sëriñ Pam Mor Guèye ma ngi ca biir njaboot ga fa tabaarakallaahu di di xalifa fa di njaboot ñu ngi ko ko yëg ak njabootu bàyyi taala Guèye gi yëpp fa tabaarakallaahu waa njóobeen bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal waa njaañ bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal soxna eh, sëriñ Yoro Jaañ ak njaboot gi yëpp ak sëñ Amar Sala ñu ngi leen ko yëgal waa jàmm gën fa tabaarakallaahu sëriñ Baaba Guèye sëriñ Ibrahima Guèye fa tabaarakallaahu ñu ngi leen ko yëgal ñoom ñëpp sëriñ Taala Silla fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp waa njaayeen fa tabaarakallaahu waa njax fa tabaarakallaahu waa mbuubeen bàyyi seexu mbuub ak ñun ko seqal yëpp famille mag waa njaayeen famille mag yooyu yëpp ne ci biir kër gi ñëpp sëñ Ibrahima Seck ñoom ñëpp njabootu Baye Gora Sarr fa tabaarakallaahu Baye Jibril Seck mi ngi fàttaliku jàmbaar seen baay xam ne moo doon lépp sëñ Canaba Ibrahima njabootu Maam Mbay Saw fa tabaarakallaahu ñoom payi bu saw ñoom ñëpp ñu biir woote bi fa tabaarakallaahu waa ñi nga xam ne ñoo wër biir canaba waa canaba gaar bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal waa xëy bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal waa waa waa waa waa waa cawaare bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal waa kër ma gay bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal waa euh, waa tuuba gay bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal waa mbaaba bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal fa tabaarakallaahu ñoom ñépp bàyyi sëñ baa ngi leen koy yëgal fa tabarakallah ak mboolem ñu aju ci daara yi nga xam itam ñoo aju ci kër gi di sëñ daam kule ne ca bopp ba ñoom ñëpp bàyyi sëñ bi bàyyi sëñ jibril jox na leen ndigal ñu commencé kaamil yi ak dog yi bu su ëllëgee ñu mën a def lépp ci ndigal seen seexu amadu mi nga ne mooy imaamu ratib te jiite loolu teg nañ ko ci loo seeni loxo kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp fa tabarakallahu bàyyi Useynu Mbuub fa tabarakallahu njabootam a ngi nii sëriñ maa jooja fa tabarakallahu ak ñun ko séqal ñëpp xam ne sëñ baam suñ ko gisee rek lépp mat na sëkk ndax sa bàyyee ko daan def njaboot gaa ngi nii toog ku leen xool seen yaram dafay daw fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla baaxal réew mi bàyyi ji bi nee na na réew mi am jàmm mi ngi ñaanal réew mi am jàmm mi ngi ñaanal réew mi am dal fa tabaarakallaahu mi ngi ñaanal réew mi am jàmm na réew mi am dal ndax fa tabaarakallaahu kilifa diine yépp ñu ngi leen ci woo ci ak dal réew mi tam leen ci woo ci ak dal ñu àndandoo ba réew mi am jàmm réew mi am jàmm yàlla na réew mi am jàmm ci ndigalu Baye Jibrilu sekk waa Grand Yoff Baye sëñ baa ngi leen koy yëgal ñoom ñëpp ak lépp lu aju ci kër gi ak num ci ajo ñoom ñëpp bàyyi sëñ baa ngi ci yërëm ak famille yu aju ci canaba ñun tudd ak ñun tuddul ñëpp ak daayira yi xam ne ñoo ne bitim réew ak daayira yi ne fii yëpp fa tabaarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal maam Ahmadou Bamba ñang fa tabaarakallahu sëñ Bamba sëñ Omar ñang di xalifa bi tam ñu ngi ko koy yëgal sàkku ci moom ay taxawaay ak ay ñaan euh, daayira ngay bi nga xam ne dañoo war a gàmm bay sëñ baa leen koy yëgal ñoom ñëpp yal na yàlla def jàmm ak sutura ak xel mu dal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. auzu billahi mina rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baalu te di leen baal di sàkku ngeen baal ñu bu baax a baax baal nañ ñëpp yal nañ yàlla boole jéggal ci ndigalu Baye Jibril Seck ci ndigalu daayira bu mag bi te nekk ca bopp ba di Baye Mundéega Guèye si seen ndigal rek la ñuy doxe ndax li ñuy def seeni kàddu la li ñuy def seen mbir la ñun seen njaboot lañu rek ndax euh, sa jamono baay Ibrahima Ndiaye moo ñu si dugaloon daal nañu lii seen alal la kon ñëw leen taxaw boobu ba tey lañ si nekk kay président ba di Cheikhou Ndiaye man may président à l'organisation euh, di woote xam ni bis boobu ñun mooy sunu bis amuñu gudu bis boobu euh, di sàkku nañ daan taxawee nu ko raw ñu taxawee ko ci biir ak ci biti ndax euh, taxawaay yi tàmbalit ba metti woon na lool waaye léegi macha allah lépp yëwén na lépp oyof na te ñun ñi nekk ci terrain bi ñoo xam loolu amul benn yoon ba ñu tàmbalee léegi fenn fu ñu mas a dem di sàkku dara wala di wut dara at yi weesu laa wax de waxuma ren di sàkkul dara wala di wut dara ba dara jafe na muy lijjantikoo sax na muy sottee sax daf ñuy yéem c'est que ñu gëmee ni nitu yàlla dong moo jar a liggéeyal te damay wax ni sëñ Ibrahima kenn rëbalu ko dara da ngay jéem a fay bokk te kenn mënu koo fay bo kon nag loolu buñ si nekkee ñu doon ne ko suñuy waajur kon sant dong moo ñu war di woo ña nga xamante ni ñoo ko bokkoon ak ñoom bañ ko tàmbalee ba tey di ko def sunu mag a ngi sëñ Baara Mm, mën ñu si lépp waaye wàcce boppam jiital ñu ak euh, daayira yiñ ko bokkal surtout waa fas Kofé nga xam ni macha allah ba ñëwee tamit ba tey changement am na ci jàppale gi ñuy jàppale ci organisation bi ak yeneen daayira yëpp kon daal ñu ngi woo mbooloo mi ñu gën ñoo jàppale leneen gi ci des mooy euh, gàmm ku ko wax xam ni ay taxawaay la képp koo xam ni membre nga képp koo xam ni soppe nga képp koo xam ni wërëre nga eh, nañ ko daan defee parce que am na ñoo xam ne tey bokkuñu ci daayira bi te dañuy participer baraw ñi bokk ci dayre bi ñu ngi di woo nañ ko daan defee dañu ni dernier délai bi si li ñuy war a barkeeroog yépp le cinq ñu góorgóorlu ba lépp jàppandi ba lépp taxaw ba na mu daan sagoo nu mu daan rafetee mu romb ko kon fa dëgg-dëgg yàlla noonu la mbir mi demee ñu bëgg nag bu boobaa it euh, organisateur yeeg ñëpp ku ci ne ñu teel a ñëw fajar gi ñu teel a ñëw nekk ci yëf yi balaa waxtu wee jot ah lépp dox heure bi nga xamante ni moom la cérémonie bi di tàmbale tamit ñu respecté ko mu teel a tàmbali ndax tamit ren moom dañoo bëgg bu ñu sañoon ñu gàmmu ci gàmmu ci guddi gi gàmm gu mucc ayib te loolu ñi kilifa yi ñooñ si mën a jàppale waaye tamit njaboot gi ñooñ si mën a jàppale kon daal ah kàddu yi mi ngi gudd waaye daal kàddu yi loolu dong la bëgg daal programme bi pap dina ko jot jottali waaw ñu góorgóoru ci a ah ba yàlla jàppandal yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf fa tabarakallah mbokk yi gis nga yaakaar naa ne nag daanu dajul suuf waaye defe naa ni ku dégg suñu orateur yi tàmbale ko sëriñ ñaanam wax na ko kan mooy sëñ ma Seck ak alaaji ngañ demba saar mi nga man wax dëgg yàlla nag fa la oote bi yaatal na ko ndax sëriñ ibrahima nag moo mel noonu fa tabarakallah lu yaatu te yàlla yaatal ko kenn du ko xatal defe naa ko topp rek annonce bi di nga xam ne loolu feeñ na ci jazakallahu xayran waaye Cheikh Tidiane Diop mi nga xam ni moom la ñuy dénk euh, organisation bi defe naa soññewaat na fa tabarakallah ndax dañuy wax nag mbokk yi euh, bis moom la koy taaral mooy organisation su baaxee rek lépp baax te yaakaar na nag organisation gam sëñ Ibrahima xanaa kay ñaan mu gën a yokk waaye ku fa ñëw rek sa day sadd kon ñoon tamit ñu ngi leen di jaajëfal mi ngi noonu euh, bis baa ngi noonu incha allah ñu waxaat leen ko le 11 mars lay waaye lu jëkk loolu le 10 di àjjuma lañ fas yéene nag ubbi bis bi kon xam ne borom yaram nag mbiram xajatul sax ci semaine waxantuma ak benn fan kon àjjuma dinañ def xadratu juma bu yaatu waaye sunu noppee ci xadra ba kay tëj ñaan ga ñaan wasifa ba mooy tàmm tànn nan ko mooy Serigne Ibrahima Sarr Diop Mbaye alxaaji Serigne Diop macha allah kooku mooy ñaan-ñaan euh, ga waaye bu ñu ci jógee nag nañ fa amal ay plateau ay waxtaan ci Serigne Ibrahima waaye fa tabarakallah ci xadra bi waaye ci canaba ku ci mel ni fa tabaarakalla Serigne Modou sekk mu bàyyi Serigne Abdourahim fa tabaarakalla dina fa waxtaan waaye Serigne Adama Seck mu bàyyi Serigne taala Xaar dina fa waxtaan waaye Serigne Ahmadou Makhtar Diop mu bàyyi Ibrahima Diop mu yaandee Seck di sëtu borom yaaram dina fa waxtaan. mbokk yi dama ne lii rek doy na avant premier sëkk te macha allah ay borom xam-xam la ñu tànn waaye ñu nu tànn ku leen déglu déglu kan moo leen ju seen waajur kenn la woon ak Serigne Ibrahima Seck kon bis baa ngi bu ñu ca jógee nag dugg samedi nag def bu ñu xëyee wàcc kaamil yu takku gis nga mbokk yi ko wax rek yaa ngi wax benn slogan mooy jàmm jàmm ci la lépp xaj yàlla nañu yàlla defal jàmm waaye bis ba ci barke borom yaaram nan fa ñaan jàmm dafa ñaan jàmm dafa ñaan jàmm ba jaan mu tasaaro yàlla na ko yàlla def barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng kaamil yu bari def fa ay dog julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñaanal réew mi ñaanal biti réew waaye ñaanal ummatul islam bi yëpp sunu fa jogee nag incha allah teeru gan ñi ñu ngi jóge Thiénaba Kajoor délégation yi na ko Serigne Madick Seck daan defee borom yàlla nee na Serigne Pape Seck parce que nag gàmm gi na ngeen bàyyi xel ni du gàmm Baye Jibrilu Seck mais gàmm Serigne Madick Seck borom yàlla nee na kon Serigne Pape ñu ngi profité wax ni bàyyiwul kenn tund woo yëpp mu koy dajale ak i mbokkam ngir ñëw rot si ci kanamu bàyyam yàlla na ko yalla indi jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam noppee nag ñu dugg ci biir def yëf yi mbayeen fa tabarakallah julli tisbaar mbokk yi ñu ngi lancé benn appel bëgg nañ bu ñu julee tàkkusaan képp li ñu li mooy na ñëpp daje tànt ba ñu waxtaane sëñ Ibrahima waxtaane sunu mbokk waxtaane Canaba vingt et une heures ñu yëkkati jotaay yi dugg ci kër yi xéewluwaat zéro heure ñu dugg nag ci tànt bi ndax nag gàmm lañu ñu wote tudd yàlla tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon foofu laay profité wax ni képp kuy tudd yàlla raw ku mel ni Pape Madiodia sunu mag ku mel ni pap Mor Gueye ko ci El Hadj Pape Abdoulaye Mbow mi nga xam ne ak i rakkam guddi ga nag fa tabaarakallah ah duñ ko bokk ak kenn ndax ku ñëw daan ñëw ku ñëwul daan ñëw te dinañ tudd yàlla dañ woy sëñ Ibrahima Seck borom yaaram kon ñu ngi lancé appel boobu ci njiitu Serigne ma dikkeeg Serigne Alpha ak ñenu ko bokkal nan daan sañsee guddi ga di def ay hôtesse wa tabarakallah ak Serigne Serigne Maliou Cissé mi nga xam ne bu nu musaanu tudd yàlla ba pare moo ni waxtaanal waaye Serigne Mohamed Samb mi nga xam ne fa tabarakallah ak Serigne Ibrahima Diop Seck mu Serigne ma dikkee parce que nag dama ne lu yaatu kenn du ko xatal kon ku cee ñëw daal ce bisu sëñ Ibrahima ak loo ca doon ak noo ca doone am nga ce wàll sa wàll nga fa boo ñëw jox la ko ba mu mat yàlla na yàlla defal ñu dugg ci bis bi ci bismillah génn ci alhamdulilahi rabbil alamin kon su ko defee ñu wàcce suñuy kaddu tàllal sunu loxo ña bàyyi sëriñ Jibrilu sek borom yaram ñaan lépp lu mu ñaan yàlla ko yàlla nangu bi jaayi nabil muxtaar sallallahu alayhi wa sallam subhaana rabbika rabbil izzati wa salaamun barke yonent bak Seexu Canaba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 canabati walisay bi ahdun yab ri an annasuunahu